wasallama taslima mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo lislaam bu tedd boobu ci fi ñu baaxoo di leen nuyu nuyoo àjjuma gu jot ci seen site bi di tubaa Argentine TV ngeen baaxoo ànd ak ñun waxtu jot ci waxtu yi ci seen émission bi tudd Labirante ñu ngi yëkkati nuyoo bu tëdd boobu di leen ko nuyoo di ko nuyoo mbooleem jullit fu man nekk ak képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo suñu jëmm ji xew ji ñu fas yéene yëkkati kàddu goo xam te ni kàddu gu guñ mën a dolli koo njariñ lay doon te yaakaar ci fépp fu mu àgg rek mu mu mu mu mu yokk fa njariñ nuyoo bi ñu ngi ci jiital sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifatul aama li taifatil muridiya di ko ñaanal mu gën fee yàgg te gën a wér di ko ñaanal mbooleem njiiti diina yi kilifa yi diine yi fépp fu ñu mën a nekk ci euh, ci àdduna bi di nuyu mbooleem mboole yi topp ci seen ginnaaw it di Euh, bala ñoo sori foofu ci nuyoo bi ñu nuyu xalif euh, xulafaa yi di di di rafetlu bu baax a baax jëf ji nga xam te ne sëriñ Mouhamadul Muntaqa jëfati na ko muy xelam xalaat bu baax a baax métti bi nga xam te ni ñi seeni euh, place lakk ci marché Ocass ñu ngi koy jànkoonteel mu xalaat ne kenn ku nekk rek. ci njabootam nga bokk te bu sa bët xonqee moo ko war a fomp mu xalaat njaboot yi nga xam ni lor jooju agsi na ci seen kaw mu doon ñu mu lool te la fa yàqu bari lool kenn ku nekk di feeñal sa yéene ci di leen massawu di leen ñaanal te massawu googu ak ñaanal googu moo ci jiitu waaye ginnaaw yi mu yëkkatiwaat jeneen jëf joo xam te ni wax dëgg yàlla dalal na xel lool muy ndimbal lu am solo jox ko ci euh, njaboot yooyu nga xam te ni ñoo yàqule ca marché Ocass ba ñu ngi ñaan yàlla euh, yàlla na ko fi suñu gën a yàggal te it euh, la ca nekk ci njàngale yàlla nañ ko ja yàlla nañ ko yàlla na ko ñëpp marché marché jàng marché jàng di ñaan. tey rafet lu baax tey séentu bu baax it ndimbal loolu doon loo xam te nii dana mën a jur barke lool ci képp koo xam te nii danga war a tàmbaliwaat ci yëngatu ya nga nekkoon ñu ngi koy rafet lu baax baax tey koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla na ko fi gën a yàggal seral na xol yi jullit ñëpp te jàngale na ci it wax dëgg yàlla nit ñi it war a demee war a mel leçon la bu jaata boo xam te nii wax dëgg yàlla détaillé la ca la ca doon am njàngat dana day sëkk ab émission waaye dañ koy junj noonu rek ginnaaw loolu it dañuy nuyu mbooleem mbokki taalibe yi féete fii ci réewum Argentine di yëkkati nuyoo bi rek di ko teg ci loxob jëwrin Mor sàll mu jot leen ñu ko mbooleem mbokki taalibe yi ci nuyoo boobu sax la ñuy delloo rek di fàttaliwaat la ñu fàttali woon émission bee passé mooy waajtaay wi nga xam te ni mbokki taalibe yi fii nekk fii ci Argentine ñu ngi koy waaja a ziyaara ji sëriñ Muntaqa Mbàkke di xalifatul aam li taifatul muridiya muy addiya joo xam te nii dees na ko dajale at mu jot di fàttali mbokk yi képp koo xam te nii e, dégg nga yëgle ba ba ñu defoon nga xam ne addiya joju ngi ci yoonu dem bu fekkee sa addiya jotugu coon a agsi it ñu ngi la koy fàttali e, loo ca man rek nga def ko te xam ne addiya moom ni ko sëriñ Saalixu daan waxe rek daana dana fekk fu dara nekkul mu def fa dara dana fekk fu dara nekkoon mu yokk ko dana fekk fu fu uh, lu bari nekk uh, lu bari nekkoon mu barkeel ko dana fekk fu lu dara nekkutoon mu def fa dara dana fekk fu fu dara nekkoon mu baril ko fekk fu lu bari nekkoon mu bark mu barkeel ko uh, loolu nag wax dëgg yàlla kon addi yi képp koo xam ne yaa ngi koy dugal rek di ko dugal fu fu a dugal rek eh, sa njariñ la ci zahir ci sa njariñ la ci baati ci baat ci baatin ndax la nga yéene ja tax nga nga dugal ko fa ko dugal eh, day dugg ci wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallahi wa ahzama ajran day dugg ci it wa man yaqtarif xasanatan nazid lahu fiha xusnan inna allaha gafurun shakur day dugg ba tey it ci man amila saalihan fa li nafsihi day dugg ci tamit ci laaj ba dangay tontu laaj ba yàlla suñu borom laajoon ne man alladi yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaa'ifuhu lahu adaafan kathiratan kathira kon ñi ngi koy fàttali mbooleem mbokki taalibe yi nekk fii ci réew mi ni ko ñoom sëñ Mortala Sall waxe ak ñoom sëñ maam Thierno Amar ak ñoom suñu Assane Baye Fall ak euh, mboolem ña ñu àndaloon ci euh, yëgle boobu li fàttali ne ku ko man boo mënee joxe 1000 peso ñu boole ko ci addi jotoon nekk yónnee ko euh, Touba mu àgg ci loxoy Sëñ Muntaxa di ñaanal yàlla mbooleem ñëpp rek yàlla na su borom gën a barkeel li yëngu yi te gën a raxas xol yi gën koo boole ñeel ñi ko war a bokk ñi war a bokk ñëpp yàlla na su borom. dindi lépp loo xam ni day waral boole googu dafa am di nuyu bu baax a baax it euh, ni ñu ko baaxee baaxoo rek euh, mboole mi nga xam ne ñoo ji ñoo jiite liggéeyu Touba ci kanam fii ci réew mi ci Argentine bu ci tuddee sëñ euh, Pape Soda Sey day yóbbaale ñi ci des ñëpp ñu nekk ci ginnaawam sëñ Baara Ndiaye ak sëñ Paate Diouf ak mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk ñoo seq liggéey bi fii rek di fàttali it mbokk yi nekk fii ci. Argentine it ñu koy bàyyi xel bu baax a baax tubaarkalla te xam ne mbooloo la moo xam te ni ku ca tàbbal saw ñaq yaa ngay dimbali daara yaa ngay dimbali ña néew doole yaa ngay dimbali kaw feebar war a faju te fajuwul yaa ngay tabax ay hôpital yaa ngay tabax ay tali yaa ngay fekk yoon yoo xam te ni nit mën na faa jaaroo loru loru nga defar nga defar ko ak la nga cay dugal lu mu xeebu xeebu xeebu jër jër jër te xeeb kon ñu ngi koy fàttali ñëpp di ñaan yàlla yàlla na su borom yëngu yëpp mbokk yi dañuy wéyal waxtaan wi ñu tàmbali woon ñaari semaine ci ginnaaw te ñu tàmbali woon waxtaanee téereb Sëriñ Tuubaa boobu mu tuddee Tazawudu Sixaar si sixaar di yóbbalub ndaw ñi waaye yóbbalub ndaw la waaye yóbbalub mag la it waaye yóbbalub képp koo xam ni yaa ngi tukki ci dundug àdduna bi sab yóbbal la ndax li ci nekk moom ndaw mën na ko yóbbuloo mag mën na ko yóbbuloo ku ko jàpp rek mu jariñ la ndax dundug xol la dundug ruu la làmp la buy leeral dundug ab jullit ci lépp lu ci sëriñ bi di jàngale rawatina jullit bu bëgg a xam boromam jullit bu bëgg a xam boppam lu tax mu yàlla suñu borom sàkk ko wàccee ko ci àdduna bi téere la boo xam te nii képp ku ko jàngu ko képp ku ko jàng dana dundal sa yaakaar ba nga xam ni nii lu waay defoon sàgganoon ci ak dundam rek dabaatal ko weesuwul ci li def ci ak dundam téere la boo xamante ni sëriñ bi mi ngi ciy leeral lu bare bare bare lu war a leer ci bopp ab jullit ci nit ñi gëmee yàlla ak la ci aju ak diine ak la aju ca diine bunt bi ci njëkk ndax la la la la la mu njëkkoon a indi ci téere bi daanaka ak taqdim la rek waaye bunt bi mu njëkk a tàmbalee faram fàcce ci téere bi da ko tudde baabun fi aqsaamid diini xaaji diine la indi ab bunt boo xam te ni daf koo fas yéene faram fàcce nga xam ne niñ ko waxee woon ci waxtaan wi passé diine bu doonoon àdduna bi monde bi ni monde bi séddali ko doon ay continent nga xam ne juróomi continent la mën ngaa jël exemple foofu nga xam ne diine boo ko doon séddale ñaata xaaj nga koy xaaj boo boolee lépp mu doon diine waaye boo ko xaajee bëgg koo def ay pàcc ñaata pàcc nga koy def ngir pàcc bu nekk mënta ñàkk ci diine nit ki war na koo xam war na di ko euh, dundal war na di ko jëfe mu ne aqsaamu diini rabbina al imaanu wa baadahu al islaamu wal ixsaanu ne na diine yi yàlla suñu borom ji daal bu fekkoon dañ koy séddale dañ koy saam nee na ñetti saam lañ koy def ñetti xaaj lañ koy def ba ca njëkk mooy gëm yàlla gëm yàlla moo ci jiitu ñaareelu saam bi walla ñaareelu xaaj bi di al islaam al islaam ñu ko waxee mooy wommatu nangul yàlla di jëfee li mu digle na mu ko digle ñetteelu saam bi di ñetteelu xaaj bi di al ihsaan al ihsaan bu ñu ko waxee mooy rafetal jëf ja ngay jëfe yàlla jëfal yàlla nit ki bu yàlla teewoon ci sa kanam boo ko jëfal xam ne julli yàllaa ko digle boo taxawee bay julli nga rafetal jëf ja ne yaa ngi mel ne yaa ngi taxaw ci sa yaa ngi taxaw ci sa kanamu borom mi la digal julli nga rafetal jëf ja te xam ne yàlla boo koy gis mi ngi lay gis boo ko gisutul moom mi ngi lay mi ngi lay mi ngi lay gis noonu mooy rafetal dëgg-dëgg jëf ja nit ki misaal bi rek boo doon jëf loo xam te ni doomu aadama moo tax nga di ko jëf bu teewee di la xool jëf ja da nga ko jëfee neneen noo xam te ni bu teewutoon doo ko doo ko doo ko jëfee noonu ci ñenn ñi. waaye booy jëfal yàlla nag di jëfe la mu la digal da koy jëf ci ne yàlla mi tax ngay di ko jëf mi ngi lay mu ngi lay ngi lay gis mooy ñetti pàcc ñetti pàcc yooyu ñetti saam yooyu al imaanu bi tawxid wal islaamu bil fiqhi wal ixsaanu bi tasawuf gëm yàlla gëm la aju ca lañ war a gëm lépp gëm yàlla doog a mat waaye di jëfe la jëf joo xam te nii day firndeel ne yow ku gëm yàlla ku gëm yàlla ndax gëm yàlla moom du ca gën a day nekk ci xel noonu rek wala mu nekk ci aw làmmiñ noonu rek déet dafa am ay jëf yoo xam te nii moo koy firndeel waaye jëf ja it nga woddi ko mbalaanum ihsaan muy mbalaanum tasawuf rafetal rafetal jëf ja ba boo boolee ñetti yooyu nag booba ci ngay doog a am diine ñett ñett yooyu yëpp fokk mu dajaloo nga doog am li tax li ñuy woowee diine waaye sëriñ bi wax na la ñetti saam yooyu ñetti saam yooyu benn bu nekk rek dana ci andi ay leeral euh, ngir nga xam al imaan gu mooy mooy mooy lan islaam mooy lan ihsaan mooy lan ci la tàmbalee ci ne imaanukum yaa ayuha sigaaru bi man lahu sigaaru wal kibaaru an tuuminu billahi wal malaika wa kutubi haadi saalikin wa saalika ci la tàmbalee andi leeral nag ne yéen xale yi daal bu fekkee da ngeen may laaj gëm yàlla mooy lan naka la ñuy gëmee lan mooy li nga xamante ni ku ko def ñu mën laa tudd ne gëm nga yàlla mooy lan laaj ab laaj la laaj bu jara tontu imaanukum yaa yuha sixaaru ba ne yéen xale yi bu ngeen bëggee gëm gëm kan mooy bi man la sixaaru wal kibaaro ki moom ndaw ñi moom mag ñi kooku mooy yàlla su borom ki moom doomu aadama yëpp ndax euh, àdduna moom da ngay doon xale wala nga doon mag ki moom xale yi moom mag ñi nag mooy yàlla suñu borom boo bëggee gëm yàlla moom nga xam ne moom moom ndaw ñi moom mag ñi naka nga koy gëmee mooy ba ca jiitu mooy da ngay gëm yàlla da gëm na am na lu am wala ku am ku ñuy wooye yàlla. yàlla moomu am dafa sàkk yeneen mbindeef yoo xam te ni ay malaayika la leen tuddee malaaka yooyu da ngay gëm ne lu am la waaye it wakkut bi haadi saalikin wa saalika da ngay gëm téerey yonente yi itam yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ak mbooleem yonente yële ya ko ya ko jiitu téere yéen andi woon da nga leen di ne gëm gëm ne téere yooyu ca yàlla la bàyyi ko yàllaa ko jox yonente yooyu ñu indi ko ci euh, àdduna ak nit ñan ñu jamon jamononte euh, lan donte téereb muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy alquranu karim moom mu ja wàcci bi mu wàccee it day daal di ëmbaale mboolem téere ya ko jiitu waaye dangay gëm alquran gëmaale mboolem téere yi ko jiitu woon nee na yii yëpp da koy gëm sa gëm yàlla doo ko mat da tàmbalee ci gëm yàlla gëm malaayika yi gëm téere yi yonente yi alayhim salaam waaye it wa yawmihi l axiri war rusulil kiram wal qadari allazi yajuudu bil maram da ngay gëmaale it bis bu mujj ba da nga xam ne bis dana ñëw àdduna bi nit ñi fi nekk di dund toll ci set milliards yu teg bis dana ñëw ñoom ñëpp yàlla da leen di faat kenn dootu nekk ci àdduna di di di di di dundati loolu la ñuy wax euh, àdduna bu bu àdduna bu tukki àdduna bu bu àdduna tukkee nag ba àdduna nekkatu fi am na beneen bis bu topp ci àdduna boobu la ñuy wax al yawmal aaxir mooy bis dernier jour ba mooy ba bis bis bu mujj ba. bis boobu ab da ko war a gëmaale dafa war a gëm ne bis boobu dana ñëw bis boobu li ko yàlla tudd ci alxuraan bari na lool yawma yunfaxu fi suuri fataatuna afwaajan inna yawmal fasli kaana miqaatan ni ko waxee bari na lool yow yow ma yooyu nga xam te ni bis bis penc lay junju li ko alxuraan andi bari na lool bis boobu it jullit euh, bi gëm yàlla daf ko war a gëmaale boo fekkee da gëm da nga ne gëm nga yàlla te gëmoo bis booba sa gëm day manqué boo gëmee yàlla gëm malaayika yi gëm téere yi euh, yonente yi indi te gëmoo bis penc sa gëm yàlla dafa des waaye war rusulil kiraam da ngay gëm yonente yi itam yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ak yonente yee ko jiitoon al na ak al anbiya yi te euh, al mursaluna yi seenum lim ni ko sëriñ bi euh, indee ci biir téere bi wax wa adadu rusuli jiimun summa yaa baadahuma muhammadu sinin fa yaa 313 euh, lañ muy ñetti téeméeri mursal lañ ak fukk ak ñett ñoom ñëpp danga leen di gëm ne yàlla moo leen yónni li fi gëmoo boole woo sa ngëm ci gëm yonente yooyu rek sa ngëm yàlla matul boo fekkee da nga ne da gëm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te gëmoo Isa gëmoo yonente ya ko ya topp ya ko yàlla day des kon da boole yonente yooyu yëpp nga boole leen gëm ne yàlla moo leen yebaloon waaye yow yàlla defal na la tawfiq nga gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy mujj xaati xaatimul anbiya yi wal mursalina yi eh, nga gëm ko. gëm yonente ya ko ya ko ya ko ya ko woon it bokk na ci liy wane ne nit ki ab euh, ku gëm yàlla la waaye dangay gëm dogal ba it dogalu yàlla bi nga xam ne nii yàlla da da koy dogal dogal yi nga xam ne yàlla da koy dogal ci azal di ko wàccee muy xew euh, lu xew rek fekk na yàlla moo ko dogaloon dangay xam loolu da nga koy da nga gëmaale mu nekk ci sam xel nga gëm ko nga xam ne yàlla lépp loo xam te nii xew na ci li jàll yàllaa ko dogaloon te lii li ñu tollool am na luy xew loo xam te ni mi ngi yàllaa ko dogal lii ñëw it am na luy xew loo xam te ni lu lu nar a xew loo xam te ni yàlla dogal na ko ba noppi. nga ne euh, loolu la ñuy wax dogal dogal yàlla yi dogal yooyu da nga da nga koy gëm lépp lu agsi rek nga nangu ne dogalu suñu borom la bu dogal waaye nangu loolu it bu mu tee ngay sabablu nangu do nangu nangu dogal yi nangu dogal yi bu mu tee ngay sabablu. lu am solo la ci liñ euh, liñ doon liñ doon liñ doon wax wal qadari allazi yajudu bil maram kon yooyu mënta ñàkk ci jullit bi mu gëm ko ngir ak ngëm yàllaam mën a mat ni mu ko ni ko sëriñ bi waxee ni ñuy gëmee yàlla mi nga xam ne ni moom moom ndaw ñi moom mag ñi da ngay gëm yàlla yàlla moomu ci moom da nga koy gëm gëm malaayikaam yi gëm téere yi yonente yi andi gëm bis penc ba gëm yonente yi ne yàlla moo leen yónni gëm dogal bi do do dogal bi yàlla bi nga xam te nii moom la moo ko moo moom la dogal muy xew ci àdduna li li xew ci àdduna bi lépp waaye sëriñ bi ci laabiram mi ngi andi di jiital ni ñuy gëmee yàlla yàlla mi ngi tudd ne dañ ko war a gëm ni ko gëmee dana la ko jàngal te nit ki wax dëgg yàlla li nga xam te nii da koo doon jullit bi nga doon war ngaa xam lan nan la ñuy gëmee yàlla yàlla mi ngi mi ngay gëm lan lan lan mooy yàlla lan mooy yàlla maanaam la ban différence la yàlla am ak ak doomu aadama yi ab laaj la loolu boo ko xamul doo daanaka yàlla pouvoir ba ma ba mu ba mu am wala kenn ki mu doon doo ko mën a jox. boo ko xamee it dana bokk na ci la lay dimbali nga xam ne ni ngay natt yàlla ak euh, différence bi yàlla am ak lu dul yàlla loolu dafa lu am solo la euh, kon ci jullit bi mu xam ko di ko xalaat yi am xelam di natt ak ngëmam yàlla kon ndax loolu mi ngi ci moom ba ngëmam yàlla ngi man a mën a mën a mat ni mu ko waxee rek dane imaanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujuduhu xaqiqu ni ngeen di gëm yàlla mooy yàlla seen borom boo xoolee bi rabbikum nga sax am njàngale nga ci nga xam ne yàlla nga xam ne leen moom mooy seen borom kenn ku nekk rek am nga loo loo xam ne nii nang nga ne moom kon lu amul borom amul ni gëm yàlla mi nga xam ne mooy seen borom nag mooy da ngay dëggal da dëggal. ci ne yàlla lu am la lu yàlla ku existe la ku ku existe la maanaam ko xam te ni ku am la maanaam amuk yàlla suñu borom lu réel lu réel la loo xam te ni doonul loo xam te ni lu ñuy sikk sàkk wala lu ñuy laam-laamee la déedéet réalité la da ngay da ngay da ngay dëggal loolu kon dangay gëm ne kon yàlla am na yàlla am na boo gisee ñi gëmul yàlla gëmuñ na yàlla yàlla loo am la euh, ku am la dañoo jàpp ne lépp lu am rek lu lu nat lu naturel daal loo xam ne lu war a am la am gëmuñ ne yàlla ku am la wala gëmuñ ne bis penc yi euh, lu luy ñëw la jàpp nañ ni ñoom dund gi fii la yem ci àdduna ku fi xas dee dee nga lu fi waaye deful ci àdduna rek euh, perte nga ko dootoo ko euh, amati wala kenn mënu fee jëf loo xam ci nii ëllëg lañ la koy fayee déedéet ñu gëmul yàlla gëmuñ loo gëmuñ loolu. jàpp nañ ne yonente yi dañ fay ñëw pour euh, manipuler nit ñi euh, comme ni nga xam te ni yonente bu nekk rek jànkonte nga jafe-jafe yooyu ci saw nit jànkonte nga yonente ci ko demee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ni ko alxuraan nettalee ma hada illa basharun mislukum kii doomu aadama la comme comme yéen rek yaakulu mimma taakuluuna wa yashrabu mimma tashrabuna day lekk comme yéen di di naan comme yéen di lekkandoog yéen di naanandoog yéen ngeen bëgg koo teg fu fu ngeen tegul seen bopp nag déedéet lañ te teg danaan wala in ataatum basharan mitlakum in mitlakum innakum isan la xaasiroon bu ngeen toppee doomu aadama comme yéen moom yéen da ngeen da ngeen di perte quoi loolu lañ daan wax loolu lañ daan wax ay misaal yu baree baree ngi ci alxuraan yoo xam te boo gisee euh, yonent yàlla Shuayb wala in wala in tabaatum Shuayban innakum isan la xaasiroon ay aidukum annakum isa mittum wa kuntum turaban wa isaman annakum muxrajoon <laughs> yonent yàlla Shuayb loolu la ko aw nitam doon wax bu ngeen toppee Shuayb mi daal yéen da ngeen di ndax dafay nekk dafay nekk moom Shuayb bu leen di leen dig naan bu ngeen euh, faatoo ëllëgee yàlla da leen dekkilaat ak yooyu leen kii déedéet da leen nax am na ñoo xam ne lañ ko lañ ko daan wax yonent bi rek rek. am na nit ñu la yàlla nattoo ñoo xam te ni gëmuñ la woon waaye bokk na ci màndarga yi gëm yi gëm euh, yàlla gëm malaayika yi gëm ngëneelul yàlla yi ci ci euh, ci ci ci ci lépp ci lépp maanaam da ngay yàlla gëm malaayika yi gëm dogal bi gëm téere yi yonante yi andi gëm yonante yi gëm euh, bis bis bis bis penc waaye nag mu andi fii nag ak leeral ne imaanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujudu xaqiqu mooy Euh, ni ngeen a gëmee yàlla mooy da ngeen nangu ne yàlla ak amam lu lu lu lu lu kenn lu sikk sàkka la la loo xam ne lu lu dëgg lu daal waaye it bokk na ci ni ngeen di gëmee yàlla wa huwa qadimun maa lahu bidaaya wa zu baqaain maa lahu nihaaya yàlla ku fi jiitu la koo xam ne nii tàmbalewul fenn loolu mën naa euh, am na mën naa yóbbee nit euh, xalaat yu nekk xalaat yu nekk ndax lu tàmbalewul fenn moom day mel ne mun xel mënu koo nangu lu tàmbalewul fenn man maa ngi fàttaliku ay jamono yóbbu woon na xalaat yoo xam ne nii dem naa ba sax ba ki ma doon jàngal ma dem di ko laaj mu ne ma nag ab jullit ay ay xalaatam dafa war a am euh, fu mu fu mu fu muy limité ndax loolu bu ko boo boo ci continuer rek dangay mel ne euh, ku gëmul yàlla wala philosophie yi nga xam ne nii loolu leen indi rek. maam man man man mën nañ ko tegg tegg ci ci ci ci xel waaye yàlla lokk na ci ni nga koy gëmee la da ngay wax wa qadimun maa lahu ku fi jiitu la goo xam ci nii mu tàmbalee ndax sam xel mën na laa yóbbu nga naan kon ba fi yàlla nekkagul yàlla musu fee musu fee ñàkk a nekk wa huwa qadimun maa lahu bidaaya waaye wa zu baqaain maa lahu nihaaya ku fi des na koo xam te nii amul fu mu yem yàlla amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem loolu bokk na ci melokaan yi nga xam te nii maanaam dafa war a nekk ci jullit bi mu gëmee noonu yàlla boo gëmee ni yàlla dafa am fu mu tàmbalee rek sa gëm yàlla day des boo gëmee ne yàlla dafa am fu mu yem sa gëm yàlla day des melul ne comme doomu aadama yi nga xam ne yow am na at moo juddu man nga jàpp sa date de naissance déedéet yàlla déedéet yàlla amul date de naissance amul anniversaire boo xam ne nga naan fii la kii la juddu wala euh, nga koy mën a takk naan euh, kan moo kan mooy waajuram ndax bu fekkee dafa am waajuram ay waajuram ñoo ko ñoo ko ñoo ko mag nit mënta mënoo mënoo mag say mag say waajur yàlla amul ay waajur ay waajur comme ni ko alquran waxee lam yalid walam yulad waaw ku mag yàlla amul ku mag yàlla amul maa si wuta kenn kenn ma kenn magu kenn kenn magu ko moo fi jiitu ñëpp te moo fi mujj ñëpp ndeysaan yàlla na ko yàlla su ma doon dolli yërëm dolli yërmande Serigne Cheikh Tidiane si daanaka wax ma bu ma saan wax daan mag mu toll ne yàlla mag mu toll ne yàlla bu ko masaan wax da xam ne kon yàlla euh, mënoo doon mag ba ba mag ko koo xam te ni ba mu fi nekkee kenn nekku fi te ñëpp dañu fi jógee mu mu mu mu des fi kooku mooy euh, suñu borom yooyu mënta ñàkk ci ab jullit gëm ko gëm ne yàlla moo fi jiitu te moo fi mujj amul fu mu yem amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem maa lahu bidaaya maa lahu nihaaya amul commencement amul. Euh, terminus xanaa fu fu fu fu muy fu muy fu muy fu muy euh, bokk na ci it gëmee yàlla suñu borom nga xam ne melokaan yi mu ngi ci moom muy wasu xilaafin lil bariyati maa wasu ginan bi nafsihi li jamaa yàlla ku wuuteeg doomu adama yëpp la amul benn doomu aadama bu niroog yàlla lenn lépp loo xam ci nii man nga koo seetlu ci doomu aadama man ko caa takke rek loolu yàlla dafa wuteeg loolu ci doomu aadama daray daray yàlla melul ne daray doomu aadama bokk na ci euh, nattukaay yi nga xamante ni nit ki war na koo natt ci boppam euh, ngir natt ak ngëmu ngëmu ngëmu yàlla am yàlla ku wuute la ak mbindeef yépp waaye it wasu xiinan bi nafsihi yàlla ku doy loolu ci boppam ci boppam la xanaa am soxlaalul kenn dara inna allaha la ganiyun anil alamina loolu wax na ko lu bare bare bi ci euh, ci alxuraan yàlla mooy ki nga xam te ni ñëpp ko soxlaal te moom soxlaalul kenn dara bokk na ci ni ngay gëmee yàlla loolu ndax ku dul yàlla rek maanaam soxlaal soxlaal nga euh, keneen dara boo soxlaalul doomu aadama yi dara it soxlaal nga yàlla dara soxla soxla nga la fa la fa la yàlla yàlla nag mooy ki nga xam te ni soxlaalul kenn dara te ñëpp ñëpp aajowoo jëm ci moom bokk na ci nattukaay yi nga xam ni jullit bi war na ko natte ak ngëmu yàllam waaye it bokk na ci nattukaay yi nga xam ne yàlla wa waaxidun wa waaxidun ma in lahu min thaanin walam yazal jalla azima shani mooy Eh, yàlla kenn la baat bu moom eh, eh, booy na ko ba tey allahu ahadun qul huwa allahu ahad yàlla dangay ngay gëm ne kenn la ay yàlla amul maa in lahu min thaanin waaxidun maa in lahu min thaanin maam yàlla kenn la amul ñaari yàlla amul ñetti yàlla amul amul amul yàlla comme ni ko xam te nii ñi gëmul yàlla te ay chrétiens noonu la jàppee yàlla nga xam ne dañuy jàpp ne euh, yàlla dafa yàlla Isaa di doomu yàlla déedéet loolu loolu loolu ku kuy ku gëmee noonu yàlla jàppee lu dul yàlla mu yàlla rek yàgg sa sa yàlla dafa dafa dafa manqué yàlla kenn la amul ñaareel amul ñaareel. comme ni ko alxuraan nettalee lu bare bare yi sax wa man yad'u ma'a allahi ilahan axara la burhana lahu bihi fa innama xisaabuhu inda rabbihi innahu la yuflixul kaafiroon euh, côté boobu moom yàlla da cee xaw a sévère da cee da cee sévère lool maam euh, jël leneen lu dul yàlla rek def ko def def ko yàlla maam jàpp ci sam xel ne yàlla yàlla la waaye am na ñeneen ñoo xam te ne ay yàlla lañ comme ni nga xam te nii fii tubaab bi dañ koy def da ngay gis ku def miracle lu yéeme ci seen i bët rek ñu jàpp ko yàlla comme seen ngóor si fi dee fan yi Maradona am na ñoo xam te ni joos lañ koy wooyee joos joos nag mooy yàlla te nit ki moom lu mu lu mu mën a def lu mu kiimaane kiimaane kiimaane loo ko bëgg ngandal ngandal ngandal boo ko boo ko tegee ci place yàlla rek mu far nga ko far nga ko tuutal tuutal ndax mi ngi nii tey ji dem na te yàlla mu ngi fi mi ngi fi des ba ba faaw yàlla du fi jógee te avant mu fi ñëw fekkoon na fi yàlla kon nattuwaay rek mën nga ko mën nga ko fee natte fi ne nii man nga ko fee natt fi ne nii euh, bokk na ci melokaan yi nga xam ne ñi ngi koy gën jox bokk na ci joueur football yi joueur football yi bokk na ci ñi ngi koy gën a jox euh, ñi ngi koy gën am na ñoo xam ne nii seen ñàkk gëm yàlla teguñ fenn loolu loolu wax wax loolu baat bu rëy boobu wax euh, teguñ ko fenn teguñ ko fenn waaye toujours rek yàlla di leen teg di leen wan ne moom rek mooy yàlla am na benn joueur footballeur footballeur bu bu siiw Ibrahimovic waxoon na ko fi ne moom. moom moom ne moom tuddi moom boppam euh, ab yàlla ab yàlla waaye jàngoro ji nga xam te ni maanaam ñi doonul dara sax am na ñoo xam te ni ba léegi dalagu leen ci àdduna bi moom yàlla natt na ko ba mu bokk ci ñi mu dal ba mu bokk ci ñi mu dal nga xam ne kon Euh, bi mu bi mu ko dalee ñu bare bare fàtt fàttali nañ ko ko yàlla <laughs> yàlla ji corona yooyu yooyu maanaam euh, fàttali nañ ko xam ne doo doo dara te xam ne wax dëgg yàlla yàlla moom ku bëgg a jël place am teg fa sa bopp rek dana la wanale wala bu la ko nit ñi wa waxee donte nanguwoo ko wala nga nangu ko it da nga gis lu lu lu lu teg lu loola lu teggi loola mooy wasu xilaafin lil bariyati maa yàlla ku wuuteeg mbindeef yi la waaye waaxidun maa in lahu min taani ku kenn la te amul ku ko ñaareel ku euh, comme ni ko bi waxee léegi rek euh, ku mag gi mbir la waaye bokk na ci li nga xam te nii amul ko ci fekk yàlla xanaa moom yàlla moom dong nga wéet ci melo yooyu mooy ñett yi muy wax mu ne bizaati wal wasfi wa bil fi'li maa tafarrada al fardu allazi li qamaa yàlla ku wéet la ci jëmmam jëmmi yàlla waaye yàlla ku wéet la ci ay meloom yàlla ku wéet la ci ay jëfam amul ku mën a misaal jëmmu ba mu niroog jëmmi yàlla ja amul ku mën a yor melo ba ba yor melo yi yàlla yi eh, eh, yi mën a identifier yàlla amul ku ma kuñ mën a melal ci ay jëf ba nga ba nga niroog ci ba nga ba nga niroo ak yàlla loolu moom yàlla da caa wéet mooy tafaradal fardul lazi li xamaa yàlla da caa wéet sëriñ bi gis nga gis nga daanaka ci biir njàngale bi sax da ciy euh, feeñalaale taw ak tawxiidam nga xam ne alfardu la koy wooye kenn ka te farada wéet na alfardu kenn ka ci lu mu wéet mooy bizaati ci la wéet ku wéet la ci jëmmam wala was fi ku wéet la ci ay meloom wa bil fi'li ku wéet la ci ay jëfam nga xam ne kenn melul melul na yàlla ci jëmmu kenn melul na yàlla ci melo kenn melul na yàlla e, ci ci ci ci jëmm bokk na ci li nga xam ne nii jullit bi gëm yàlla war na ko bàyyiwaale xel lépp loo xamante ni natt na ci yàlla natt na ca yàlla mu bokk ak mu bokk ak e, doomu aadama rek na génne loolu e, yàlla yàlla ku wéet la ci ci lépp di wut ak dara doomu aadama wala ku dul doomu aadama it. moo tax sëriñ bi ne ko maa in lahu fi zaati wala wasfi wa fi afaalihi thaanin wa man shaa yastafi yàlla amul ñaareel ci jëmmu amul ñaareel ci melo amul ku ko ñaareel ci ay jëfam loolu nattuwaay la bu bàyyi bu mat a bàyyi xel nit ki di ko nattee eh, ak ngëmam di xool moom ndax am na ku mel noonu ku dul yàlla ku dul yàlla rek am na loo bokkuleeg doomu aadama yi ci sa jëmm walla ci say melo walla ci say jëf sa jëmm mënees na caa xool gis ca jeneen jëmm say melokaan yoo xam ne ni nga ko melowoo mënees na caa xool gis ca jeneen jëmm bu fekkee ak mbaax la wala lu mën a doon rek. ak ci ay jëfit jëf joo mën a jëf rek jëf rek mënees na mënees na caa natt jeneen jëmmu judul yow waaye yàlla mooy ki nga xam ne nii nir wut ak doomu aadama lenn ci ci ci ci ci ci yooyu bokk na ci it e, li nga xam te ni jullit bi war na koo bàyyi xel ci ak ngëmam yàlla melokaan yi muy bëgg a wax nga xam ne maam day doon yoo xam te ni e, lu nekk la ci yàlla muy wa qudratun maa iradatin lahu wajaba taabudan huwal tujid lahu ni ko sëriñ bi waxee eh, nee na eh, qudra mooy eh, man mooy kattan ak iraada mooy ak nammel loo loo coobarew ñaar yooyu ay melokaan la yu war ci xaqi suñ borom loolu kii gëm yàlla ba ba tey da ko war a gëma da ko war a da a gëmaale mooy euh, tur yooyu maanaam xudra loolu ñuy wax kàttan man nga xanaam loo bëgg man nga ko loo bëgg loo euh, ak coo coobare woo nga xanaam sañ sañ sañ def lu nekk innama amruhu ida arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun ak inna rabbaka faalun lima yuridu yàlla lu ko neex lay def iraada googu ak ak xudra googu lu lu lu war la ci suñu borom jullit bi ko war a gëmaale ma ba tey ba tey bokk na ci melokaan yi nga xam te ni jullit bi war na koo gëmaale ne lu yàlla làmboo la muy ilmun muy xam-xam yàlla réeréwul dara amul loo xam ni yàlla xamu ko loolu euh, melokaan la boo xam ne nii jullit bi war na koo gëmaale ni nga xam ne nii ku dul yàlla rek am nga loo xam am nga loo am nga loo xamul wala yàlla mooy ki nga xam ne nii ku xam lépp la allaamul al alim alim inna allaha bi kulli yàlla lépp la xam te ku dul yàlla it maanaam melokaan woo jomb na la ku xam lépp kon euh, melokaan la boo xam ne nii de jullit bi da ko war a nangu ne bokk na ci li ñuy gëmaale ci euh, ci ak ak ak yàlla waaye xayaatun yàlla kuy dund la donte ak dundam lu wuuteeg dundug doomu aadama yi la nga xam ne am dafa am fu mu tàmbalee am fu mu yooyu nga xam ne da ci nekk ci biir dund gi mu am ci lu muy bëgg te du ko mën a am wala mu am ci lu muy mën ak lu muy lu muy lu muy tële wala mu am ci loo xam ci ni comme melokaan yooyu nga xam ne mooy xew ci dundu aadama doo ko natte noonu dundug yàlla déedéet. waaye dangay gëm ne kuy dund la xayaat googu da euh, dund googu da nga koy da koy nangu ci xàq yi suñ borom sunu borom waaye maa samain wa basar yàlla kuy dégg la laa allaha samiun wax nañ ko ba tàyyi ci alxuraan yàlla lu waay euh, ngurum ngurum li ba nga xam te ni euh, boo ko waxoon ci wetu doomu aadama doomu aadama mën na koo bañ a dégg yàlla moom lépp lay dégg. kon melokaanu dégg kooku lu war la ci sunu borom sunu borom wa basar donte déggu yàlla yit mënut te yem ak dégg doomu aadama nga xam ne ma parfois léeg ak dundam yóbbi ko mu dem ba ak déggam dootu neex wala ak dundam euh, war euh, tax mu dem ba daanaka euh, léeg-léeg la nga mënoon ci ay jamono dootu ko mënaat déedéet yàlla lool lool lool lool du ko dal waaye. melokaan yi lu jullit bi war a gëm la ci sunu borom wa basar ak gis yàlla kuy gis la inna allaha samiun basirum wax na ko ba tàyyi ci alxuraan moom tamit euh, daanaka li ci bari sax euh, buy ñëw ci alxuraan samiun alim ñooy ñooy lëngaloo wala samiun basir innahu huwa samiul basir ak inna allaha samiun basir ak innahu huwa samiul alim xeet yooyu daanaka euh, melokaan yooyu saa yi ko yàlla di melal boppam ci alxuraan rek daanaka ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy lënkal ñooy lënkaloo waaye jullit bi ndax xam ne loolu lu war la ci suñu boroom waaye bu mu jàpp mukk ne ni mu doonee ci doomu aadama yi noonu la mel ci suñu borom déedéet yàlla du koy bët bëtam di ay waan wànneen ba nga xam te ni di ajowoo euh, benn oculiste wala muy ko xam te ni xëy na ab euh, déggam day dafay wàññi ko ba mu soxla fajkatu nopp wala yi demee wala mu wala muy noonu wala muy xam di wala muy xam di fàtte ni ni muy dalee ab doomu aadama nga xam ne boo jàngee tey jii ab téere te nafaroo ko waman ta waman taraka takraara la budda an yàlla ku xam la koo xam te ni du fàtte dara euh, te ku xam lépp la nekkul di xam leen di xa di xamul leneen déedéet ñi nga xam ne nii doomu aadama ak xamam dafa limite dafa dafa dafa limité wu loolu bokkul ci melokaan yi nga xam te ni luy luy dal suñu borom la waaye maa kalaamin ànd ak wax waxit looy nangu lu jullit bi war a nangu la ne suñu borom kuy wax la kuy wax la ndax boo xoolee eh, eh, ci biir eh, wa kallama allahu Musa takliman yàlla wax na ak Musa yàlla wax na ak Musa ba ko Moussa waxee ne ko dama laa bëgg a gis mu ne ko euh, damay dugg ci euh, ci euh, ci doj wi bu fekkee doj wi attan na attan na mën na maa dékku rek xam ne man nga ma maa gis waaye fa lammaa tajallaa rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa xarra Muusaa sa'iqan yàlla ba mu feeñoo doj doj wa bëggoon faa jaare ci Moussa man koo gisee foofu doj wa dafa euh, def pënd Moussa fa la jaare daanu xëm ba mu ba mu mu xiqee fa la ma afaaqa qaala subhaanaka tubtu ilayka wa ana awwalul wa ana awwalul mu'minin la wax dafa daal di jégglu yàlla su borom ci loolu euh, sàkk mu sàkk woon euh, gis ko tuub la doon def daal xam ne doonul lu ma a nekk kon yàlla day wax wa kalama allahu Musaa takliman wax naag euh, malaaka yi wax naa euh, nettali nañ ay ay histoire yu bari ci alxuraan yoo xam ne ni day wane ne kuy wax la wa id qaala ibrahima rabbi arinii kayfa tuxyil mawta qaala awalam tumin qaala balaa walakin liyatma'inna qalbi qaala faxuz arbaatan min at-tayri fasurhunna ilayka summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna yaatinaka sa'yan wa'lam anna allaha azizun hakim Ibrahima sàkk woon na ci yàlla su borom mu won ko naka lay dundalee ñiy faatoo yàlla njox ko ay tegtal wax ak moom kon te boo xoolee alquran it waxi yàlla su borom la waxi yàlla suñu borom la waxi yàlla suñu borom la ni nga xam te ni téere tasawudu sixaar bii ñuy euh, waxtaane waxi Serigne Touba la alquran waxi euh, yàlla la xadis waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, kenn ku nekk it téere ba nga bind say wax la ndax la nekk ci sama xel nga julli ci téere boo ci ci ci téere ci téere boobu kon melokaan yi ab jullit daf ko war a nanguwaaleel sunu borom muy ilmun xam-xam ku xam lépp tax euh, umpaliwul dara yàlla du ab ignorant safaan safaan comme ni nga xam ne nii comme ni niñ ko ni nar a indee kanam safaan yii nga xam ne nii yu war la ci suñu borom safaan ba day jomb ci suñu borom xam-xam lu war la ci suñu ak dund dégg ak gis ak wax kon melokaan yooyu mat a bàyyi xel yoo xam ne nii bu nekk rek war nga koo xam te xam ne lu war la ci àqi sunu borom. waaye nag yooyu melokaan yooyu da nga jël comme def ko am mbubb man koo solal jëmmi yàlla jëmmi yàlla ji xam ne yàlla da koy da koy da koy da koy melowoo ay melokaan yi la melokaan yooyu danga war da war a gëm ne melokaan yooyu yu war la ci àq suñu borom waaye da ngay gëm ne it suñu borom melokaan yi da koy da koy melowoo comme ni nga ko ni ko sëriñ bi euh, waxee wa kaw na rabbina taala qaadira comme ni mu ko tàmbaloon ci wax qudratun da ngay xam ne melo euh, qudra melo melokaan la waaye da ngay xam ne suñu borom melokaan woo da koy da koy melowoo mooy tudd xaadir xaadirun ala kulli shay'in ah da ngay da nga kon loolu jullit bi war a euh, gëm la xam naa ne dana am ñoo xam te ni dana xaw a lënd ci xel diggante ñaar euh, melokaan yooyu waaye mi ngi mel ne am mbubb rek mbubbu mën nga koo moom mu nekk fi doon mbubbu waaye it man naa mën naa doon mbubb wala doo ko sol waaye <laughs> melokaan mën naa fee nekk ba noppi doon lu lu lu lu war ci yow loo xam te nii lu lu loo mën a melo ko melowoo la ba noppi doo doo doo doo ko doo ko jëfandikoo doo ko jëfandikoo waaye melokaan yii yu war la ci suñu borom waaye eh, suñu borom melowoo ko it lu jullit bi war a gëmaale la muy wakkaw na rabbina taala qaadira xayra muridin comme ni mu ko topp toppandoo rek al irada wal qudratu wal irada da nga xam ne suñu borom kon xaadir la ko aji aji aji am kàttan la xayra murid la murid murid moo xam ne ni aji nam la xanaa kuy kuy bëgg dara la te lu mu bëgg it na mu ko bëgg lay amee lay ame te aalim la mooy ab xam aj borom xam-xam la aji xam aji xam la xayyan la xayan mooy ko xam ne ni aji dund la samia la aji dégg la xayra basiir la ba tey maanaam as-samia al basiir maanaam aji aji gis la wa mutakalliman te aji wax la it moom suñu borom melokaan yooyu da ngay da jullit bi war na koo euh, nangul suñu borom nga xam ne maam du cee gën ay melokaan la rek yu nekk ci moom te du ko def par exemple du cee ne melokaanu wax lu nekk ci yàlla la waaye yàlla dafa tële wax déedéet. aji wax la aji dégg la aji dund la aji am kàttan la aji aji am ci am euh, euh, euh, coobare la aji gis la it kon melokaan yëpp da ko koo war a nangu ci xaqi sun borom comme ni ko sëriñ bi waxee du annahu alayhi tastaxilu addaadu si sifaati falto tuxilu safaani melokaan yii mu tudd ne lu war la ci suñu borom da ngay nangu ne safaani yooyu lu jomb la ci suñu borom ndax euh, melokaan yi melokaan yi tegtale ak mat la te kum nekkul ci yow ak manqué day nekk ci yow te daray manqué nekkul ci suñu borom moo tax mu ne wa annahu alayhi tastaxilu lu jomb la ci suñu borom addaadu si safaati mooy safaani melokaan yi muy wax comme moo tax mu euh, daane la ko fal taxilu fal tuxilu ni mu jombe ci suñu borom na ngeen ko ko jombale safaani melokaan yi euh, ba ci njëkk mooy qudra maam suñ borom tëliwul dara comme na ko na ko jiite woon sax euh, wujuud ga la la la la jiite woon mooy moo tax mu ne ay adamun li mu jubloo wax ne safaanu melokaan yi boo bu fekkee yaa ngi topp euh, waxtaan wi danga xam fa euh, melokaan yooyu tàmbale woon yàlla ku exi ku existe la nga xam ne maam ku fi nekk la kon safaanu ñàkk fee nekk da nga koy jàmbale suñu borom muy ak ñàkk. ñàkk ñàkk ñàkk euh, existé ñàkk amuk yàlla wala euh, maalahu bidaaya comme ni nga ko waxoon maalahu bidaaya maa xuduthin lu sosu sosoo fenn da nga koy da nga koy jombale suñ suñ suñ borom amul fu mu tàmbalee safaanu ñàkk ñàkk foo tàmbalee mooy am am foo soso sosoo am fu mu tàmbalee am ab dat wafanaa ak jeex mooy am fu mu yem comme ni mu ko waxoon rek wasu maa lahu bidaaya maa lahu nihaaya da ngay xam ne kon suñu borom safaanu am foo foo tàmbalee lu jomb la ci moom safaanu am fu mu yem day lu jomb la ci moom mooy am mooy ak jeex xanaa dem ba suñu borom ni dootu dootu fi dootu fi dootu fi nekkati dootu fi nekkati tamaasulun ak yemoo wala nga xam ne maam euh, am lu mu niroog nit ñi wala am lu mu bokk nit ñi comme na nga ko waxoon wasu wasu xilaafin da ngay nangu ne ku wuut ak nit ñi la waaye euh, yemoog nit ñi wala bokk ak nit ñi euh, dara loolu da koy jombale suñu borom dafa bokk ci melokaan yi nga xam ne lu jomb la ci suñu borom waaye maa maa maa afti xaarihi ànd ak aajo woon aajo woon nga xam ne maam soxla soxlaal kenn dara loolu melokaan la woo xam ne nii wu jomb la ci suñu borom. comme ni mu ko waxoon wa zu ghinan bi nafsihi safaanu doylu ci sa bopp soxlaalul kenn dara mooy iftixaar yi nga xam ne da ngay aajowoo lenn kenn loolu melokaan woowu lu jomb la ci suñu borom taaddudun ak limu comme ni mu ko waxee woon rek maam ëpp kenn ëpp yàlla am moroom am ndenn Euh, limu googu comme ni ko alxuraan wax rek qul law kaana maahu alihatun kama taquluuna isan lattaxaw ila zil arsi sabilan subhanahu wa euh, am am na jeneen yàlla rek kon yàlla ji benn yàlla dana ma sa ci lu beneen yàlla bi loo xam ne ni keneen ko du ko du ko du ko nangu du ko nangu loolu xel xel nangu xel nangu ko yàlla bu fekkoon am na keneen ku dul yàlla rek maam ni mu organisé àdduna bi du ko du ko du du du mën du mën du mën a nekk kon taxaddudun da ngay xam ne kon ak limu melokaan la wu jomb ci sunu borom ajizun ak lot comme comme euh, li ñu waxale rek nga xam ne mooy safaanub iraada maam bëgg dara ba nopp euh, euh, ajizu mooy ak lot maanaam euh, të tëli tëli tëli dara loolu melokaan la woo xam ne wu jomb ci àqi suñu borom li ñuy wax kara karaaha mooy safaanub iraada it loolu it melokaan la woo xam ne nii wu jomb la ci sunu borom li mu wax lépp waxoon na melokaan yi nga xam te ni yu war la ci suñ borom waaye yii muy waxaat lépp yoo xam te ni la safaanu yam waxoon la te yooyu te sa yooyu war ci suñu borom suñu borom safaan bi yu yu jomb la ci suñu borom ndax safaan ba day day day dal nit nit kiy dund dana dee nit ki mën dana tële nit ki dégg léeg-léeg mu mu mu tëx nit ki gis léeg-léeg mu mu mu gumba mbaaye waaye safaanu yi mu wax yëpp lu jomb lu jomb la ci suñu borom. samam comme ni mu koy waxee léegi tëx jeexlun ak réer maam ñàkk xam dara bëgg bëgg fàttali ko dara euh, mu mu të mu tëla wala nga am loo xam ne nii amoo ca xam-xam loolu yëpp ay safaan la yoo xam ne nii yu jomb la yu jomb la ci suñu borom wa mawtun ak euh, faatu nit kuy dund ko nekk da nga faatu kon yàlla mooy dund te du faatu ba mu koom mooy euh, allahu laa ilaha illa huwa alxayyul mooy ki nga xam ne ni mooy dund te du faatu euh, ba ba ba faaw waaye euh, safaanu faatu safaanu dund mooy faatu lu jomb la euh, ci sunu borom waaman ak gumba di gis léeg-léeg mu am loo xam ni say bët dana naqari ba doo ba doo ko gis loolu it melokaan la woo xam te ni wu jomb la ci sunu borom waaye maa bakkam ànd ak luu mooy bëgg a wax dara te mënoo ko wax tëli ko loolu lu lu jomb la ci eh, xaq sunu borom ab julli da ko war a xam da ko war a xamaale waaye comme nii moo xooloon eh, melokaan ya war a ci sunu borom koy aj ci sunu borom ni mu waxee melokaan yi jomb ci sunu borom it danga koy jël aj ko ci sunu borom eh, moo tax mu ne ko wa kawnahu aajizan aw asamma aw kaarihan aw jaahilan aw ama sunu borom doon aji lottu ci dara wala aji tëx. Hmm? wala aji sib eh, sib dara wala aji réer wala aji gumba wala aji dee aw mayitan subhanahu aw ab kama wala aji lu melokaan yi yëpp daal di melokaan yi mu lim daal mustaxilaatun yu jomb la ala rabbi sama ci yàlla suñu borom mi nga mooy borom asamaan kon muy lu am solo loo xam te ni lu ma ta bàyyi xel la melokaan yoo xam te ni dafa war bépp melokaanu melokaanu mat rek. lu war la ci suñu borom waaye bépp melokaanu manqué manqué te rek lu jomb la ci suñu borom euh, comme ni mu ko lim ni mu ko limale mu leer naa ñi te leen lu nekk rek euh, lu neexal euh, leeral la ndax lu am la ci doomu aadama loo xam te ni gis nga ba tàyyi ñu mu am ci ñoom gis nga ba tàyyi ñu manqué ñu manqué ñu manqué ci ñoom ñu manqué ci ñoom waaye kon ñu ngi jege fi ñuy war a jeexale émission bi waaye dañuy tëj bunt bi rek. Euh, moo tax su euh, sëriñ bi ne wa annahu subhanahu laa yajibu alayhi shay'un bal li fadlin yahabu yàlla dara amul loo xam ne obligatoire la ci moom lépp lu mu def rek da koo neex mu def ko lépp lu mu euh, defit da koo may rek waaye amul dara loo xam ne nii lu war la ci moom dara dara warul ci moom maam lu ko neex rek lu ko def lu mu def rek da koo neex mu def ko waa annahu subhanahu laa yajibu alayhi shay'un bal li fadlin yahabu lépp lu muy mayee lépp lu mu jox adama it doomu adama it da koo jox rek ngir baaxam waaye du tegi ne lu war la ci moom wala luñ ko obligé la moo tax ne fa fi'lu kulli mumkinin wa tarka fi haqqihi ajiz ku fii talif ka yàlla su borom lépp lu mu def rek ak bàyyi Eh, ñoo yem ñoo ñoo ñoo yem ci ñoo ñoo yem ci moom maanaam def def def lu nekk ak bàyyi bàyyi ko ñàkk ñàkk ko def maanaam jàppal ne lu dagan la ci àq suñu borom suñu suñu suñu suñu borom daal suñu mu def bu ko defee kenn du ko dara bu ko bu ko ci defutoon bu ko defutoon kenn kenn kenn kenn du ko ci wax dara ab jullit foofu la war a xoolee eh, sunu borom eh, sëriñ mi ngi mi ngi ciy leeral indi na ci ay yaatal ci téere yu bare bare. li mel ne tazawudu shubaan euh, ak yeneen téere wax dëgg yàlla moo mawaahibul quddus indi na ci ay njàngale yu gën a yaatu waaye dafa doon bunt boo xam ne nii wax dëgg yàlla fokk nit ki mën a concentré wu ba li sëriñ bi di jàngale mën a dugg ci am xelam ndax euh, day wax dara loo xam te ni day mel na da koo baamu te fekk baamuwu ko waaye waxin wa moo moo moom la am euh, nit ki war a ubbi am xelam ba mu dugg ci moom ba mu dugg ci moom ndax nit ki par exemple am euh, Moustapha Lo mën naa taxaw fee wax melokaanu wax doon loo xam ne ni lu lu lu la ci moom ba noppi di wax xeeti yooyu bu la bu la koy wax ci di leeral suñu borom da ngay nangu ne kon melokaanu wax lu lu war la ci suñu borom te te te te da koy def waaye nag safaanub ñàkk ñàkk wax mooy mooy mooy luu loolu du du du ko du ko dal te loolu. jombul ci ku yàlla ku yàlla rek melokaan yi am ci yàlla mën na mën na mën naa nekk ci yow mën naa bañ ñu nekk ci yow it waaye bu nekkee ci yow it taxul nga niroo nga nirooli ko ak yàlla bu nekkul ci yow it euh, taxul nga nirooli nga nirooli nga nirooli nga nirooli ko ak yàlla nekk gi mu nekk ci doomu adama yi du cee na day tax mu yor lenn suñu borom wala euh, la mu am euh, te suñu borom am am ko mu bokk mu bokkale ko ak yàlla déedéet. misaal lañ ci mën a jëlee rek misaal lañ ci mën a jëlee rek moo tax sëriñ bi jeexalee buntu boobu ne dalilun ala tihil ashirina ashirina bayantuhu fi xayri satabina maanaam ñaar fukki yii mu lim ñaar fukki melokaan yii mu lim ak ñaar fukki safaanam euh, andi naa ci ay leeral yu yaatu ci fudul téere bii di tasawudu tasawudu sixaar waaw moo tax mu ne li anna sal kitaabe zu taqaddumi ala al kabir al kashif al munbahimi ndax euh, téere bii di tasawudu sixaar da ko dafa jiitu ci téere yooyu mu gën a mu gën a yaatal leeral leeral gi moo moo tax euh, mu gën a détaillé ci téere yooyu fii ci fii fi nga xam ne fii da ko da ko da ko da ko da tënk rek da ko tënk rek kon mooy li nga xam ne ni andi nañu nañ leen ko tey ci seen émission bii di Labirante fii ci seen télévision Touba Argentine TV euh, di ñaan rek yéen mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan waxtaan yi ngeen di ko partagé ndax euh, mën naa yaatal njariñ li bu fekkee gis nga ci sa bopp mën naa taxit euh, wax dëgg yàlla boo ko partagé képp ku mu àgg ci moom lu mu ci jàng rek euh, ngëneel la wala tuyaaba ja yàlla su ma dana dana dana la ko dana la ko dana la ko bindal dana la ko bindal ñu ngi sant yàlla bu baax baax tey ñaanal suñu góor a sekk mi nga xam ne mooy kilifa kër gi di Touba Argentine TV yàlla su ko suñu borom gën a kàttanal te yàlla suñu borom gën a. def tawféex ci liggéey bi gën a barkeel euh, mboolem yëngatu yu ñu fi defit euh, lépp doon njariñ lépp doon njariñ ndax it ni nga xam ne mën ngaa toog jàpp ab euh, télévision bu bu bu ñëpp xam mën ngaa toog sa kër jël sa téléphone jàpp Touba Argentine TV jëlee ci njariñ loo xam te ni mu doo ko doo ko doo ko jëlee ci ci ci télévision yi kon nag na ci ñëpp bàyyi xel ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu